ata ñu wax ci li nga xamanteni mom tamit actualité la Sénégal fi mu nekk ni muy eh, xalé yi nga xamanteni dañ leena tek ci école yi bëgg leena jangal goor ak jigen ñuy sey yow en tant que en tant que mag lan nga ci xalaat en tant que mag bu bu am raq buy jang en tant que ku nara am ay doom ñu dem jàngi yow lan nga ci xalaat comme fi mu ne yaa ngi waaja jël soxna kay eh, sa waay man damay sant yalla rek bama démé ba jang ba parta ma yoyu nañu waxante dëgg am na yoo xamanteni ñun suñu jamono tollul foofu ñun Sénégal tolluwuñu foofu fu ñuy jàngalee suñu xalé yi jàngal suñu raq wala suñu doomi ay affaire sexualité comprendre nga xalé dafa sensible xalé dafa sensible xalé li nga ko wax rek lay japp lam gis rek lool lay roy xalé boko ko école mu nekk xalé bu ndaw nga bëgg ko wax lo xamanteni tuul ci xelam soko ko da koy dem essayer ji te bu ko essayer ji nak luy problème problème bi dina judduwaat kon bu nekkoon dañ ko jël pour saafara jàngoro nañ jur ni luy jar jàngoro la. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord ma ci loolu.